suratul falaq saaru e suuda ma dem jël tëgg ma ne la xam su aaya juróomi aaya la allahu akbar laa ilaha illallah allahu akbar laa ilaha illallah qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin naas ñu baax leen watam wàcc na ba nga xamee ne nabi day ibnu asam lenn weexoon ci dëgg ca Medina dafa xajoon yonent bi de ba yonent ko sallallahu alayhi wa sallam faj na ko ñëw ci bëkk néegam di ko daawa Zayd ibn Saabit ñaan ko kawar ak yonent bi yonent sëriñ naka dama koy barke dama kooku ko mu dem faj yonent bi ci ci tos tos ak benn tos ko ci kawar ak yonent ba sallam nataal melaw yonent bi jant bu ci bu saak benn ya ay yàqam taf leen ay taf leen ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feebar ba mu ñaari malaaka bàyyi ko ja Jibril ak ñeneen malaaka kii toog ci ndeyjooram kii toog ci càmmoñam menn malaaka ba ne lu ko dal mu ne ko dañ koo xaj mu ne ko ko xaj yonent bi jéggi mu ne la bi day ñu laatam yahud ana xaj ma ma nga ca teen sangam teena bani sarwaan yonent fa sallallahu alayhi wa sallam daal di xool si dina Aliou ne ko ba nga wàcc ca loo ca fekk rek ngay yim ma ko dina Aliou ba fekk paj mi ndoxam teen bi sax mi ngi soppeeku deret <coughs> mu génne ne ñu ngi def na daal yonent def ci fukki pas-pas ak gànn jam ci fukki tuuti ak gànn ñu naan lii fi bi de yàlla wàccee yaari saa yu de saaru njëkk wi juróomi aaya la saaru mujj wi juróom benn aaya la muy fukk benn laaya ji yonent bi jàng rek suusa guddeegu ca kayit ba parce que fecceekul boppam yonent daal di yëg itam ci yaramam na ma amee jàmm des fukki que ak benn yëpp fecceeku fukki tuus ak benn yëpp guddeegu yonent mu daal di wér moo tax yaari saar yooyu képp ku taxaw ci balaa ngaa ko loolu ah mbokk na kenn du la mën a faj ku la faj itam faj ma dana dañ Moussa Sine yi weddi nañ xabaar boobu ne mënul nekk ndax yonent bi su fekkee ni yàlla mën naa may jabar mu di ko liggéey ba liggéey bi di ko jàpp kon kon rek ci yonent bi yàlla li ko teg lii man yàlla def ko bëgg waaye bi nga xamee ne moom suñu bëgg bëgg sax teg na ko moo tax gaar gaar yaa dina yi feebar feebar ci yaram rek dana ko dal ñu dalee ñëpp ci waa ak ñàkk waa ak jaaxle waa ak naqar yaa dina yi kooku lépp loo xam ne du laal yonent bi rek lépp luy dal doomu aadama dana dal doomu aadama dana ko dal moom yonent bi ndax ci loolu am na kon ñun duñ mën a muñ waaye nag waaw ñu la mën a dal soo seetee ne ñu ngi gën a gën ñëpp te du ñu def ko doon dal rek nga mën a mën loolu la ci yàlla jublu tax na ba te jabar ji hadis bi yëpp wax na ne jabaram lay Aysata waaw ñu jël boobu ñu ne jëloon yeneen bi fekk nañ ko ci ba nga xam ne am na ab diit waaw ñu ko booloon jabaram Aysata ba nga xam ne saa yu wàccee dañ defar di làqu waaw moo ko la loolu soog a dem ci moom loolu itam ñu dal dañ leen di dal waaw doo ko mën a mën de waaye lépp luy gaar ba xam ne ci yaram ñu ne ci ñoom aadama bi rek la jëm loolu mën naa daal yéen dugg si laa yoo xam ne li ngay wàññeeku nag waaw wàññeeku ci jëmmam waaw kooku moom yàlla da ko ko teg ba nga xam ne nag nee jabar jabar boobu am ne ba saa yi wàcc nag da yàlla saafara yonent bi saafara yonent bi jëm ñu ndigal rek ñu dem rek ñu labi daal dama ñu ñu moom ñu la doon jabar yonent bi ne déedéet man yàlla saafara na ma jeex mais bëgg naa jot ci dëkk mais nga fekk leen muy ñaari saa yi mu ne yow ilaana bi rabbil falaqi ak ilaana bi rabbin naasi day nekk mati mu ne yow aadum melaw yàlla rek la lamboo bu melalee yàlla rek ba nga xam ne dara du dul mooy yàlla te balaa nga am xam yàlla ba nga ci itam li nga xam ne moom la def mooy mooy mbindee bi bu fi daal mooy tax nga mën a taxaw ci xarit Sala ak ñoom war ndax ku gisul lu mooy yàlla du gis lu war du gis lu tere foofu kafar la juróom ku la juróom ba fay jàll moo tax buñ la waxee yàlla la gisatoo dara lu mooy yàlla mu wax la yaa saa yi nga xam ne mbindee <coughs> bi yàlla yi la la tuddee on se dirait du xalaat nga xam ne yàlla kat. <coughs> mu ngi nekk moom kenn rek teewut xamal na ay mbindeef su ko defee nga jóg ci mbindeef yi ànd ak weer ñu te doo leen gis ñu jëflanteeg ñoom te doo ñoom ñu nekk ak ñoom te doo nekk ak ñoom loolu mooy tax nga jox ku nekk moo tax bi ba mu waxee boppam ci saa yu njëkk ñu ngi wax liggéey bi de kon waxal awoon si dina mujj ba dax di xalaat ci borom suba ñu sori maa xalaat ak jaay la muy bind. maa ngi mujj ci yàlla mi nga xam ne moom moom suba ci xëy lépp lu mu bind loolu bind lépp kaddu xalaat la tudd ndax moo dëkk maanaam ñu jóge ñu ngi jóge ci kër yàlla boo xam ne yàlla rek fa ne leneen nekk ba bu ñu bëggee gis leneen lu yàlla dañuy dellu ci suba bi dëkk ba affaire bu fajar yi roxo yi ñu ngi ci kër yàlla bu sell la ñu ne ñu nekkoon ci lëndamam ñàkk yàlla rek nekk léegi bët set na ndax ñu gis leneen liggéey maa ngi gis yàlla nga xam ne moo di borom suba ci xay yooyu lépp luñ dund loolu dundee lépp kàddina amul njëriñ laa wala ñu tànnee xaasate ak ci xay ci biir nga wax xam nga kàddi ak lëndëmam maa ngi ñu ci yàlla ci xay guddi ndax guddi kàddi la ci ci guddi lañ koy saxee ci lëndëm guddi moo tax maa ngi mujj yàlla ci ay lépp lu mu dund waaye maa ngi koy mujj itam lay ci ay guddi ay guddi gannaaw bu lë gannaaw bu mu lëndëmee ndax gannaaw bu mu lëndëmee ba xew ci lay xewee maa ngi mujj yàlla ci ayu ayu ay jabar ay jabaru jigéen ñuy tax nit ñi topp topp nit ñi ñoo ngi Nabi day indi laataam Nabi la fi fajoon yonent bi ay doomam jigéen ñoo ko doon jàlle di ko màcc di ko xofle di tafli ba nga xamee ne ña ngay jéem a doon yonent ba nga xamee ne seen bët mooy sabab yi ñu doon gën a ñetti dugg seen bët bi maa ngi mujj yàlla ci ay bët jabaraan kat day màcc di tafli wala tafli aasiti ak ci xayu aji xañaan ila xabada ba feeñee kañaanam de maa ngi mujj yàlla itam ci xayu képp koo xam ne dafa xañaan rawatina nag ba mu xañaanee ba mu nekk dund bëgg ñaan nga mu feeñal ko. mujj na yàlla ci xayu lépp lu yàlla na yàlla ci xayu guddi na yàlla na yàlla kañaanam feeñ añaana dina màgg ci gàtt yëpp moo tax bu ko tuddee yéen ci benn gàtt bi saare saare dafay jeex añaana moom ko añaan nag amul ci lay xeexat yàlla ñu ngi lay xeexat añaan mooy lan mooy ngëm la dëkk te yow ci yàlla may jaam bi mu dañ ñu ne yow sax doo ko xam bokkut ak ñeetaane ñeetaane daga na gis yàlla may ko moromam jaam nga mu doon moom dara nekk te rawatina si jëlee ci mbir diine waaye nag soo nga déggee ne yow doo ko am sax loolu moom mooy añaan tax de yàlla wax ne bu leen yëge lu yàlla jox seen mel ni moromi jaam te moromam jaam soo ko seetee nga fekk ngëneel yi lim lamboo lamboo wala ñoom day juutale ngëneel ci jëmm ji laaju ñii jëmm jëmm ji laaju ci jëmm ji ñu ci yëpp ak kaar ak njambaar ak sabe jëriñ ñu taggee nit yëpp bu nekkee ci jëriñ nit li ci dikk nag mooy moo am wërsëg bëri alal bëri doom bëri ay ndimbal bëri ay soppe bëri ay xarit am ci lu mu ci bindee ni soo gisee nit lii yëpp booloo ci moom xel mu mag am dëgg am xam soo gisee lii yëpp nga seet sa bopp yow loolu yëpp amuloo ko ñaara lay set benn nga mébét a meloon ni moom loolu mooy wala nga melitoon moom mu ñàkk ko emam eh, yow loolu mooy añaan moo tax yonent bi wax ne seetal bul seet kene féete kaw seetal kene féete suuf koo ne yéen a leen ci mbiri àddina la ndax su dee mbiri àddina ak foo mën a toll boo seetee rek da nga gis ñu bëri ñoo xam ne yaa leen tànn kon doo mën lu may sant yàlla waaye itam foo mën a toll boo seetee ci kaw ñoo xam ne ñoo doon fële buuf mooy nga daal di xeeb li nga am benn a ñaan wala nga ñeexaale kon nag ci mbiri àddina boo bëggee dëkk di sant yàlla del seet ñu ne féete suuf ah bari na ñoo xam ne maa leen maa ngi sant yàlla bon doo xeeb li nga am da nga sant yàlla am maa ci mbiri diine nag del xool daay man dëkk la féete kaw loo fotlu fotlu soo seetee ci kaw ñu la gën a fotlu buuf kon dangay mën a yokk sa sablu rek waaye itam foo mën a toll ci nafa boo seetee nit ñi di ñoo xam ne yaa leen tànn loolu daf lay taayandoo moo tax bi ñu ngi seet ku la féete suuf seetal ci la féete kaw ndax ngay yokk ci jë ci suuf ci mbir bi àddina nag seetal ci la féete suuf bul seet ku la a sant yàlla. aji xañaan nag yaa am ne du du fan nekk fan bu mukk ndax ku yàlla. ku ñaan ak ku nay dañoo a fal yàlla moo tax duñ mën a nekk sang buñ fal yàlla jënd doomu aadama yàllaa ko bañ loo toppe moromam ci ci kanam mu topp ci du dugg du ko def mukk lu mooy la fa ko waral lu ko waral nag soo mooy rek bëgg nga toppe dañ xataa yàlla sax li ñuy bind bind dafa am njëriñ ci ñun maanaam li ñuy wax maanaam kon li ñu mooy topp ci moom meneen meneen meneen moromam jaam na moom doo ko topp mukk lu mooy am na lu waral lu la jaral nga topp ko su loolu dañu rek topp nga dañu lañu kon nag yàlla may jaam bi teewal nga bëgg mu dañ te jaam bi teewal ñu ko yàlla may tax muy topp yàlla mooy rek bu nga bu jaam bi topp ci yàlla rek moo tax koo ñaan dafa bëgg a fal yàlla bi nga xamee nag ne nit du topp nit mukk lu mooy dafa ko waral pour naay ba du maye dara añaan ba bëgg keneen maye dara kooku kenn dara ko topp moo tax yaaram ne aji añaan du nekk njiit du nekk sang ku añaan nag moom la yaaram di wax ne tooñ kat boo xam ne ko ni moom lañ tooñ ku añaan rek la koy gisee ndax ku añaan dafay mu bon jëmale ci ci yàlla delloo ko ci moom dafa ci beneen pexe yàlla delloo ko ci moom muy jàmbat bi daay man mooy tooñ te daay man mooy jàmbat moom ngay fekk mu dëkk ci tooñ te mel ni moom la ñuy tooñ mu ngi mel ni ku fab aw daj sànni la ko bëgg a lëkk sa bët dañoo ñëw lëkk sa bët lay jooro mu sànni ak beneen bëgg mu lëkk sa bët càmmoñ mu dee lëkk sa càmmoñ mu sànni ak beneen bëgg a dem sa mbagg mu ñëw dem mbagg mu sànni ak beneen bëgg a dem mbagg mi jëlee mu ñëw dem mbagg mi jëlee ku ñëw dee moom lay yërëm mel ni moom lañ tooñ te fekk moo tooñ soñaan foo ko fekk noonu lay mel dafa amoon benn buur am fóode bi mu bëgg jotaay bi mu toog fóode bi dina ñëw taxaw ko lii rek la ko daa digal nag képp ku la defal lu baax fay ko lu baax am la ku la def lu bon jëm fay bàyyi ko lu bonam la moromam fóode bi dina ko nag añaan ko añaan añaan gaye mu gaye buur bi ak saf bi ko buur bi añaane ko ko be bëgg lu may génne ko xañ ko ba kanam rek mu génn àddina génn mu daal di ne soo de ne ko dama lay invité ñam ci sama kër mu nangu mu ko kii yaa ko fonk waaye li ñu wax ci yow kii lu war a wax ci noonu mu ne ko daf ne da ngaa xasee buur bi mu ne ko loolu ma koy mën a xamee mu ne ko ko waxee na la seetlu nga da nga xam ne noonu noonu la jàpp ci yow daal di génn nag daal di lënguwaay rek nga gis néegam laajal ko palaat ak kooro sala kooro laajal ak soble yu ba néegi jox ko mu nekk moom la ñu saaba ñu lekk mu nekk <coughs> dafa ko mu ne ko dafa doon liggéey bi am ñu daal di fox rek dalax nit ñi sax daal di àgg ci buur bi ñu ngi naka jege ñu ngi leen di wax buur bi wax mu ne ah bu ñu naan li ñu wax dëgg la bu dee li ñu ne daf ne dama xasee jënd dëgg la gis naa ne misaal bi xam te buur bi ci aadaam mos a bind leetar ci loxoom lu may day maye xaalis daal bu koy joxe mooy bind ci turam ci yeneen mu jox du nale lu may loolu nag keneen a ko bind keroog nag nar na sax ba bindal boppam benn góor nar a bind ci ci réew mu ne ko maa ngi lebal biir bi yow lay jox leetar bi bu rek na nga ko fees dara mu eh. eh. nga xeexal koo xatara yéen ñëw daal di jox ko ni ci ko loolu añaan daal di ko dogal ne ko may may ma lettre bi mu ne ko lettre bi xamul lu gën mu ne may ma rek xam nga ne buur bi lu may may amu nga dëgg rek moom rambaaj moom fa añaan ka mu daal di taw dem ci gouverneur ba ba mu ko joxee lettre ba ba mu jàng xanaa ko buur bi dafa naa la rey léegi fees la am paañ la feesal fa der bee xatat ñu ne ko léegi ñu ne du man du man keneen la ko bindaloon ah mu ne ko man du ma delluwante ak buur bi wax li mu wax rek laay def daal di ko xaaral rek di ko xawaay daal di ko fees feesal dara ma xatase yéen a biir buur bi fees gis ne fii di suñu joxoon leeral bi ñu xaw a góor ne ko ñu ne mu ne ko leeral bi ñu ma joxoon ñu ma génnee rek daf ma ko ñaan xam nga ne day dugg ci sa loxo lu mooy da ngay maye ndam dama ko may naa ko rek mu ne ko wax ma dëgg dëgg lu jox ko ci biir day waaj de bis la wax ne sama mbir mi dafa xasal mu ne subhanallah naka laay waxee ci biir bi ñu ma xam ci yéen mu ne ko lu tax mu ne la mujjee xoo may wax rek nga takk sa bakkan yi mu ne ko boobu moom moo moo ma invité jox ma laaj ak carotte ak soble ma lekk ko ci saa si mu ne ma dama lay buur bi jotuma dalax mi ci sax ma bañ laa lor ci kat moo taxaw ne sax suñu jëriñ bi ma joxe lettre bi moom ko ñaan may na buur bi ne ko ku la defal lu baax fay ko lu baaxam ku la def lu bon fay ko lu bonam <laughs> delluwaat ko ci place bi di ko ñaan yëpp noonu la